di leen jottali kàddu yu nuyoo eh, kàddu yu cant ak i ngërëm yu bàyyi ko ci ak Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moo fi jëmmi Sëriñ tubaa tey ci kaw suuf di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér suñu borom dolli ko wér ak kàttan ba naal yu rëy yi mu am te dara génn ci lislaam dara génn ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa suñu borom may ko kattan ak wér ba lépp mu mottali ko di mu ko bëggee kon bala ñoo dugg ci li waral bis muy màggal gi Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon na ne mi ngi nuyu àdduna sépp bayuur kenn rawatina al aalamu islaami yi bépp bayuur kenn rawatina nag ñi nga xam ne ñoom la siqal réew mi bayuur kenn rawatina nag bokki kilifa diir yi ñi nga xam ne ñoo moom ñoo bokk mission bi ñuy def te suñu borom diggee ci alxuraan ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum nee na mu ngi jokk bokk lislaam gi ci ñëpp bàyyiwu ci kenn teen siyaare di jokk bokk gi bokkuk lislaam gi ak bokk der gi ngir xam ne liggéey bi ñoo moom ñoo ko ànd te kenn ku ci ne la la war ci sa digg moom ci rafetal ak jokk ko yaa ngi koy def kon nag sëriñ bi nee na mi ngi sant kilifa dindi yépp di jaale nag ñi nga xam ne bàyyikoo nañ fi mooy suñu kilifa bopp yi fi bàyyikoo ci biir yoon wi xam ngeen ne moo ko limee sax dafay juum waaye ci kër yu mag yi xam ngeen ne am na suñu ay waajur suñu kilifa yu fi bàyyi ko ñëpp sëriñ bi moo leen taxawal boppam mi ngi leen di siyaare di siyaare njaboot gi di ko siyaare taalibe yi waaye itam di siyaare kilifay diine yi nga xam ne bàyyi ko nañ fi ñoom itam di ay kilifa ci senegal ñoom itam fenn fu ci ne sëriñ bi bu ko mënoon moo fay defal boppam waaye yónnee na fa ndaw ñu teewal ko fa ngir ànd ak ñoom naqar kon mi ngi siyaare kilifa diine yëpp di masawu itam ci ñaar yi nga xam ne moo fexew benn bi di mooy mbas mi nga xam ne sunu borom moo ko wàcce ci kaw suuf mu ngi ci masow àdduna sépp rawatina ñi ci ñàkk seen bakkan waaye rek nañ xam ne képp koo xam ne faatu nga ci biir mbas ci li lislaam wax shahid nga mooy attab ku dee nga ci xare loolu kon kenn ñaanu ko yàlla waaye ku ci faatu itam wala taxsibanna llaziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa'un inda rabbihim yurzaqun rek lañ koy jàppe farihiina bimaa aataahum allahu min fadlihi kon mi ngi nuyu kilifa diine yëpp bàyyiwut benn tarixa nag waaye day mel ne kon bu tànnee sëriñ Babacar Sy Mansour mi nga xam ne mooy alxalifatul am di tarixati tijaniya tudd ko ci tuddaali nag këri diine yëpp bàyyiwut kenn muy suñu mbokk yu tedd yi nekk Kawlax di njabootu alxaaji Abdullahi alxaaj maam Abdoulaye Niass ak di waa suñu bokk waa Njaasaan ak njabootu Cheikh Omarou Fouti ba ci njabootu Laayeen ba ci suñu mbokk waa Canaba bàyyiwuñ kenn ndax boo xasee lim sax dangay juum li wala fi di wax naan fu lim fàtte waaye kon buñ ci tuddee suñu Babacar Sy Mansour ala raasihim tuddaale nañ ñëpp di ko santit bu baax di rafetlu kàddu yi nga xam ne waxtu ne mi ngi koy yëkkati ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ci rafetal ngir bëgg lu gën a dëgëral bokk gi ak lu gën a dëgëral diine ji kon ñu dikk nag ci li nga xam ne moo ñu fi tax a daje mooy waajal bis bu tedd bii nga xam ne moo dëgg dëgmal suñu kanam di màggal gu Sëriñ Tuubaa gi màggal gi nag mooy suñu lépp ndax lépp lu Sëriñ Tuubaa am ci bis bii la ko amee dafa laxasaayu gàddaay dëddu kër yi dëddu njaboot gi kër yi gent lépp tas mu dem liggéey la rasulullahi sallallahu alayhi wa ngir indaale ab sarica boo xam ne xett li mbindeef yi képp lu ci jublu nam ko leerale woon wax ne bi ma demagut ci géej gi dama meloon ne ku nuyu ku amee xeetu lat ko mu bàyyi xet ga ci sama loxo képp ko mu nuyu ku ne ne ma may ma laj ko lañ te booba waxuma leen di am laj koloñ lañ waaye xawma fa laj ko nekk ne man ne kon nag li liy ngor ak jom ci man mooy fexe ba wuti laj ko mu ne waaye booba liimaan ak lislaam ak lixsaan ñëwuma ci nabiyul mursal ñëwuma ci malakul muqarrab kon ba muy dem ca géej gi dafa laxasaayu boo fekk na mu am daraje xutbaaniya daraje xutbaaniya xam nga ne ci la daraje am waaye mu dem wuti lii nga xam ne tey mooy ilay qaadallaahu maa lam yakuni wala yakun abadan li mukuni te mooy lii ko suñu borom fayee muy loo xam ne ba àdduna sosoo ba nag ni kenn mës a gis Sëñ Tuubaa li ko yàlla defal te séentuwuñ ne yàlla dana ko jox at kenn ndax ma ko bind kon màggal gi mooy suñ lépp mooy ndigalu Serigne loo xam ne ba ko Serigne Touba santaane képp koo xam ne taalibe Serigne Touba nga dangaa jaayante sa digg ak te jaayante gi it mooy istara minal muminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna kon bis bii nga xam ne lépp lu ñu am moom lañ ci lañ ko amee te Serigne Touba moo digle woon. ba liggéey bi matee ndax waxtu wi saa su ma saan agsi ba muy nekk ci nattu ya la muy métti métti saa su agsee suñu borom dana ko tegaat natt yu gën a métti yam ko tegoon te da koy yëg ni ko nit ñi di yëge ba ca njaarim nag soriwut loolu 1920 21 dafa am ay wóote nag waaye soriwu ko ndax loolu itam li ko indi dañoo wax ne sëriñ bi bu mu koy jëkk a màggal ci at mu njëkk ma booba siiwalu ko daa xëy rek suñ borom xamal ko ne nattu yi jeex ak paye ci des sëriñ Touba tàmbali màggal gi kon nag loolu dara lu mën a dox suñ digg màggal gi ci àdduna amut ndax euh, suñ bakkan bañ koo fekkee moo ñu gënal bañ a jëfe ndigalu suñ Touba ndax bakkan moom lu mu yàgg yàgg yàgg bu dundoon téeméeri at tam bu xasee ba dem mel na la moog lu mustam ñu am bu dul lu jëfe lu baax ndigalu sëriñ Tuubaa nag defarug àdduna ak defarug alaaxeer lañ ci yaakaar kon amul lu mën a dox suñ digg màggal gi sëriñ Tuubaa moo ko santaani woon daa ko def di ko ànd ak ñëpp kon na ma ko waxee woon daaw bu ko cheikhul xadam xadim santaani muy ndigalam cheikh Mahoudou Moustapha santaani wu ko muy ndigalam cheikh Mahoudou Farid njëkkoon koo xalaat sax doy nañu sëkk wóotaluñ ko ndigalu Sëriñ Tuubaa kon loolu foofu la pëseefu taalibe bi àgg kon nag ñi ciy wax ñàkk xam wala dugg ci lu seen yoon niwut ndax ñañe waxal digluwuñ leen màggal gi kenn ci am sañ-sañ mooy ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa nag amul jotuk di diglu ñi ci biti lam war a def xam na ko Cheikh Mouhamadou Mountakha ni ma ko waxee woon daaw bépp responsabilité bu mu war a jël moo ñu mag fuuf ëpp ñu xam-xam fuuf gën ñoo ragal yàlla fuuf gën ñoo jege Sëñ Tuubaa fuuf gën ñoo engagé ci mbirum Sëñ Tuubaa fuuf kon kooko gën ñoo xam-xamu xam-xamu àdduna kon ndigalem rek lam daa wax rek fale la ñëpp war a nekk mooy sama kilifa dama koy bàyyi sama jëmm bàyyi ko jëmmam waaye nag àdduna la Sëriñ Tuubaa waxoon booba dafa woote ak Cheikh Ibrahima Fatim mii jëwriñam ma nga woon ci jataay ba sëy moo laaj ma sàmba ne ko ndax ma sàmba ndax ñëpp ñëw nañ suñ ma sàmba ne ko mbàkke ñëpp ñëw nañ de mu ne ko waaw loolu de woote dëgg ñëpp wuyu si la ci de yàlla mayu ko boppam mayu ko rasuul kon du ko may kenn waaye nag nañ xam ne fa in yakfur biha xaw faqad lay qawman laysuu biha bi kafirin kon ñu sant yàlla rek mi nga xam ne moo ñu fekke moo ñu may ñu fekk waate tal ko loolu lépp ci coobare suñu borom la ndax wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi da ko cee boole lii nga xam ne moo fi xew di mbënd mi itam nga xam ne ñu bari génn dañ seen kër sëriñ bi diis na ci moom ndax bu soñoon képp ku gàddaayee sa kër maam ngir bëgg ak mucc ak rawukaay ak foo jaamu yàlla bu soñoon boo dikkee da nga fi fekk lu gën la nga fa bàyyi te yéeg na ne coono yi metti ni ci nit ñi ndax am na ci ñoo génn nañ seeni kër te kii nit ki génn këram ay bagages sam yëpp yàqu loolu xam ngeen ne fa dayalu metti àgg àgg na fa ndax ku ci ne ci sa biiru néeg di muy senn képp guddi ga doon nelaw dal na bu yàggul mën mii di wax ak yéen kon boo xalaatee ki nga xam ne dugg na ci biiru saalam dugg ci biiru néegam dugg ci ëttam yàq aw waañam ak dundam jeex loolu metti na ci moom kon sëriñ bi nee na mi ngi ma masawu ñëpp waaye nag nañ xam ne yàlla suñu borom moom lu mu tegu jaam rek dafa gën ci moom te ñëpp a jaaxle woon tiit sëriñ bi wax na ni ñëpp tuub dellu suñu borom ñaan suñu borom sotti ndoxum jàmm ndox nag yàlla moom noonu lay mayee wa yaa qawmi istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursili samaa aleykum idraaran wa yazidkum quwwatan ilaa quwwatikum kon loolu alxuraan la waaye nag Cheikh Abdoul Ahad waxoon ne Sëñ nee na yàlla suñ boon de boo ko ñaanee la nga gën a bëgg day seet la nga gën a bañ boole ci yaar yëf rek man nag mooy bool leen wala nga bool leen sànni kon sëriñ bi nag loolu na xam ne lam ca war a def def na ko ca ndax sëñ bi lu ne waxtu ne mi ngi xalaat njaboot gi waxtu ne mi ngi xalaat nit ñi bëgg ñëpp ne ci jàmm lii itam lam ca war a def ak war ko caa dox jiitu na sax lii di am ñam ko war a seqal mooy nguur gi fi nekk itam lam ca war a dox ak ñoom ña ngi koy dox te sori na bu demee ba sotti nag sëñ bi baaxoo nag lu ak siwut mu di ko wax ñoom ña nga xam ña ngi ci seen loxo bu noppee day ñëw leer ko ñëpp dégg ko waaye sëñ bi. ñaari yi nga xam ne nee na mooy itteem yi ko gën a ñor ginnaaw université bi mooy ndoxum dëkk bi ndax yëg na ndox mi manqué na ba Cees mooy assainissement bi nee na ñaar mooy ñaari somb yi ko gën a ñor nga xam bu université bi jàllee rek moo ci topp te ñu dugg nag ci waajtaayu màggal Tuubaa nga xam ne mooy li ñu fi dajale màggal gi moom nañ ko daa defee rek luñ ciy bàyyi xel rek mooy fi jamono toll. loolu nag suñ borom moo ko indi mbas mi yàlla xam li tax mu wàcce ko waaye kon li nga xam ne na ko Cheikh mu Mountakha waxoon rek foofa la ñuy daa waxoon ne ñi seen xam màcc ci wàllu àdduna li leen seen xam-xam jox loolu lañ mën a wax nit ñi mu ne nag ndegam gëm nañ loolaay ci tax a mucc nag nañ ci ànd ñoom kon loolu ndigalu sëñ bi kon sëriñ bi ne ni muy fàttali. bokk jullit yi ak bokki taalibe yi lépp loo xam ne ñi yor wàllu kër docteur santaane nañ ko ci gëm ne mooy tax jàngoro ju du law ndax mu wóor na jàngoro nga di ko wàll nit loolu bàkkaar la kon laa dara darara wala diraara da ci dugg kon li nga xam ne docteur yi digle nañ ko ñoo xam nag détail ya tax yépp sëriñ bi nee na mi ngi ci soññe nit ñi góor góor góorgóorlu ci def ci jite fexe ba sàmmoonteeg loolu nga xam ne waa Kër ñu ngi koy santaane la jiitu ci programme bi nag mooy première safar bi li ci sëriñ bi daa santaane ca commission bi nga xam ne mu yor wàllug mbale mi te sëriñ Cheikh mu sëñ jiite ko bis boobu ñu ngi ci soññ ñëpp ndax bis la bis loo xam bisu jaayante la bisub xidma la itam di ko ànd ak sëriñ Cheikh jëmb mi nga xam ne moo jiite mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ak mboolem Baye Fall ak waaye mboolem taalibe suñ tuwaay ndax bu suñ seex jëmbu jiitoo rek taalibe yëpp tàbbi nañ ci biir kon ñoom itam ñu ngi leen di soññal ñëpp suñ seex war na faa dem ci sëñ bi ci ndigalu sëriñ bi ngir soññ leen ca ndax keroog dem nañ fa ci liggéey ba waaye dafa guddi ngir fàttaliwaat leen ko waaye la sëñ Moustapha wax rek moo ci am nee na toogate ba sëñ bi di ñu soññ ci mbale mi de ak ñàkk jom la ci ñoom kon ñoom fekk na ñu jekk ba noppi waaye ñu ngi ci soññi taalibe bi yëpp te ren lay gën a jafe kat ndax dañ daa dañ daa bay di buub waaye ren da ngay ndox ba noppi dooru wër bëtu war a setal kon loolu tam nañ xam ne leneen lu dikkaat ci jamono la ba ca dolli ko waatit mooy njàngum alxuraan bi nga xam ne ci premier safar bi lay tàmbule sëriñ bi santaane woon ko ci li weesu waaye mi ngi joxe waa ndigal bu premier safar tàmbulee penc yëpp fu ñu ko mën di def ba bisu màggal ga ñu di ko def di ko def addiyee rasulullahi di ko def addiyee Seex Xadim na ko kilifa mu jëkkee daa santaane loolu sëriñ Mouhamadou Xaban Mbàkke Cheikh Mouhamadou Fadil mi nga xam ne ñu ngi koy ñaanal suñu borom dëgër ab taxawaayam ci ginnaaw boo xam ne magam magam ju baax ji sëriñ mor yoroon na ko te yoroon ko yoreen wu rafet boo xam ne adduna sépp ko seere bi mu fi bàyyi ko sëriñ bi joxandigal sëriñ Mouhamadou Xaban mu tegawaat ci loxom ñu ne ci gannaaw ñëpp ànd moom kon sëriñ bi jox na ko ci ndigal mooy itam mu ànd kook mboolem rabita bi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ak mboolem ñi nga xam ne ay sëriñ daara lañ sëriñ bi ngi ci soññ ndax xam ne eh, lépp lu ñu liggéey la sëriñ Tuubaa loolaa ci war a jiitu ñàngum xasida itam sëriñ bi mi ngi ci jox ndigal taalibe yëpp waaye rawatina nag sëriñ xam sutum sëriñ Suhaybu ndax ngeen dégg ngeen kàddu yi mu ko seereel ci njàng mujj mii te yàgg na koo seereel sëriñ bi nee na mi ko ci soññ mboolem ñi mu ànd ak ñëpp bu première saison bi tàmbalee rek fenn fu ci ne ndax dañ ko daa woote ci jumaa ji waaye ren dafa jege woote bu mujj bi moo tax mu ne comme defoon nañ ko te yàggut kon kenn ku ci ne mën nga koy dundal ca daara ja nga nekk wala jàkka ja nga nekk wala pinc ba nga nekk ñu ànd ko moom ba. ba ñetti fane safar yi ñu doo ko tàmbali ci jullikaay xib bi ci biir loolu itam sëriñ bi jox na ndigal daayira Hizbut Tarqiyyah ci njiitul sëñ Yuusu Jóob bu alfatih min safar ak see rek moom it njàngum xasida mi fii ci buntu kër Cheikh Mamadou Faare ñu tàmbali ko bis bu yàlla sàkk ak kuréel di fa jàng ñi du ko def ba màggal gi loolu it muy lu yees loo xam ne sëriñ bi ren la ko santaane jox na leen ci ndigal te ñoom itam jekk nañ ndax ay soldaar rek lañ ba leen ko sëñ bi waxee neen leen bu leen ko waxoon tey ñu tàmbali ko loolu lépp tam nag gàttandoo ko rek ak ñaan ngir daje ceeg tawfeex ngërëmu sëñ Tuubaa la kon sëñ Tuubaa nañ xam ne lim ñu dig ci àdduna rek mboolem lim ñu dig mboolem lim ñu lim la Cheikh Moudou Moussa waxoon bu ma téye woon kaasu kafe mu wóor ma ne lii kaasu kafe la mu wóor ma lii kaas ko fi la la ma Sëñ Tuubaa wax te tegaguma ci sabat moom laa gën kon loola yaqin la war a doon ci ndax ba muy wax loolu kat mas naa ko fay nettali booba dafa am ko jàng waccaal bihi daariya kal madina barakata wala ka ambata musula kooku mel na ko xaw sikk sàkka mu ne ko mbaat danga koo sikk sàkka Cheikh Moussa wax ko lii booba Touba ndax mën na ñaar fukki kër ndax bi ñuy def recensement bi Touba ay 1978 boo ëpp 3000 kër ñett ñetti junni kër te fi mu toll nii ci li gën a wóor mën na ñaari millions yu tegal nga xam ne kon moo tax président bi sëñ bi nga koy sant di ko gërëm ndax fi mu ko tegit mooy man dama ci seere ndax li sëñ bi dox seen diggante maa koy def moo taxit bu ma sëñ bi ne sant ko tuuma ci ku ma ci ngàññi bëgg mooy ku ma ci wax dara ndax loolu amul soxla la ma ci amal soxla mooy ndigalu sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha te ñi fi nekkal sëñ Tuubaa ku fi ma sa nekkal sëñ Tuubaa bu sa responsabilité accès ci war a wax doo ci sédd lu naq lu naqari nit ndax nit ñi kenn mënta fexe ba ñu gërëm ridan naasi xaayatun laa tudrak Cheikh Mouhamadou Moustapha bi sëñ Tuubaa ñibbisee Tuubaa 1927 28 élection yi jëkk am balees doon xëccoo Cheikh Moustapha moo ko jàppale fésal ko ba ba mu gañe moo ko fal kon ñooñu ñooñu gën fuuf Cheikh Mamadou Fadil ba Senghor di xëccoog Lamine Gueye fii ci soow jumaa ji ba Senghor waxee lañuy wax ñëpp ngi toog ba mu waxee boo tudd jumaa ji suñ fàllu ñam kam kam sësal dana ko jël na ko de kon moo ko fal Cheikh Abdoul Ahad 1988 ba mu waxee la mu wax ci abdu Diouf wax ji jaaxal ñépp daa wax moo Modou Badara jóob ne ko sama wax jii de jaaxal nañu bari ne ko xam ngeen wax ji lu ko daa ne ko bu li ma wax de bala ko nit ñoon xam ñëpp ñëpp ci bañ ko def daana ko sama kàddu gii de boo ko peese nag ak kàddu bindee fi ci balaas réng ji ñépp koy diggandoo dajale ak njabootam wax leen ne leen coow li di dafa bari lool boo élection yaa ngi sës xam daan leen xam nga lu indi coow la ñu ne ko déedéet mu ne li ma ne Abdou Diouf dana toog ñëw du fi toog mu ne waaye buñ xamoon la ma xam ne kenn du ko nattable ndax xut bu samaan ak buur suñ borom dana ko fal ñeent fukk guddi wàcce ko ci asamaan su mujj si kon koo xam ne sax xam-xam ëggut foofa wala sax mu àgg ca danga xam lu nit ñi xamut danaa ciy nett loo xam ne ñooñu ñu ngay dund sëriñ Abou Mbacke suñ mbuur ba mooy xel suñ mbuur ba xam te di jarbaaru suñu Buxaari ak suñ xel suñ fàllu dañoo ñëw ji siyaare si suñu Buxaari ba suñu bilaad waxee wax ja ñuy waxtaan seen waxtaan muur ci biir oto bi bañ accès te seen teg suñu Buxaari di ju génne ci kër di julli ji nag leen ko laaj ba suñu Buxaari génnee mel na ku leen di tontu nee na waxee suñu bilaad ji de ñu bari danañ ci wax ba yàqoo ci waaye buñ xamoon la tax ñu wax ko de kenn du ko nattable kon ñoom foofu lañ nekk sëriñ Saliou Mbacké président Abdoulaye Wade ba mu koy fal ñëpp xam na ne da ko ñaar ba na ko jugal nga wuti réew mi ñaareelu at ma gis ngeen dam ci jëfandikoo li ma li yéene Sëriñ Tuubaa laa ko ñaan kon moom daa waxoon ne nag sama kilifa yi dañoo amoon ndigalu wax man nag ndigalu ñaan la am waaye day jëfandiku mu la mu bëgg am am Cheikh mo Cheikh Sidi Mokhtar xam ngeen 2012 kàddu yam waxoon adduna àdduna ko xam leeroon na at mi weesu Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko wax ci làmmiñ ñoom ñëpp dégg te man ba ba mu koy wax maa ko njëkk dégg ne ko demal ci borobu Sëriñ Tuubaa boo demee la nga la loo bëgg nga fas ko fa Sëriñ Tuubaa daal la ko defal kon nag lu ma ci xam ci loo xam ne seere la ndax loo ci xam ne kat doon na lu jaadoot ñu jëme ko ci taalibe wala ci dëkk bi bu boobaa sëriñ bi nam ko war a bañe ne la koy bañe kon loolu la ko ñëpp xam Cheikh Mouhamadou Mountakha weesu na foo xam ne dana wax lu neex nit lépp lu muy wax ngir yàlla jëm Sëriñ Tuubaa tax ak taalibe yi te moom bu dee ñun niti àdduna lañ dañoo manqué dama tade lu ne mën nañoo dal waaye moom mi fi nekkee Sëriñ Tuubaa lépp lu xalaat weesu na lépp ndax li àdduna jariñ weesu na ko li nit adduna mën a mën a li nit li ñu soxlaa nitu adduna Cheikh Mountakha weesu na ko moo tax eh, ku baax ki ci mujj gi biñ ko waxee ne ko nga doxale sa digg tubaab bi ay nit sëñ bi dane leen sama digg ñoom de kenn doyuma ci ndax ku dul man rek mën nañ la xupp wala ñu xëpp la man nag munisuma xupp suma xëpp loolu nag def na def na ko ci ki ko fi nekkal waaye nag ci moom képp la nag moom mi fi nekkal Sëriñ Tuubaa mënu koo xupp kenn mënu koo xëpp kon nag ñu ngi ñaan ñun ñëpp nag yàlla ñu tàbbal ci biiram yóbbaale ci alfulkul masoon gi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa def te duggal ci taalib yëpp te tàbbal ci tàbbal ñu ci adda xaltu nafsi wa jabi wa jami ahli fi jay bi afdali wara bi fadli wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu